tout ce monde là ñi nga xam ne tey jii dañu dëkk ci wag bi muy 3000 familles plus de 250 000 âmes ñi nga xam ni tey jii li ñuy dund métti na lool te kenn tegu leen ko lu dul état du Sénégal. te état du Sénégal moo am projet bu ñu tuddee TER war a déplacer ay centaines de milliers de personnes te wax dëgg yàlla tegu ko ci yoon. tegu ko ci yoon muy dafa salfaañee ak ak yelleefu doomu aadama yooyu ba nga xam ni tey jii. dafa am conséquence ci seen njaboot conséquence yi mu am nag bëri na parce que boo leen xoolee ci déplacement bi euh, suivi réinstallation ak suivi déplacement bi ñu war a def defuñu ko ci ba wax dëgg yàlla seen njaboot yi sonn nañ xale yi jàngatuñu parce que amatuñu non seulement les moyens jàng mais fi ñu dëkk léegi dafa enclavé. am na ñi nga xam ni dañoo amoon kër ñu tuddee ay propriétaires de maison léegi ils sont devenus des locataires ñu alerter l'opinion nationale comme internationale. parce que li xew ci impact terre bi defe naa fii rek la am te lan état war nañu jox ay prime de vulnérabilité ay perte de revenu locatif yi nga xam ni tey jii ñu luwe woon seen kër six mois nañ koy multiplier ñu fay leen ko ba léegi ñu jot xaalis boobu. état bi jox ñu quarante hectares sur Lac Rose Lac Rose boobu ñu jox au lieu que état bi euh, aménager ko mu gaaw parce que dafa ne woon deux mille vingt et le début des travaux ñu commencé ko an ñu ne octobre 2022 dafa war a jeex muy une année loolu lañ fixé woon pour durée bi nga xam ni tey jii travaux yi moom lañ ko waroon aménager ñu constaté que nu some en presque boo xoolee novembre 2023 ba léegi aménagement yooyu jeexagul plan action bi nag mooy dañuy continuer suñu TER TER bi waxuñu TER comme train express régional mais TER comme tournée d'expression radicale dañ koy continuer te dinañ ko détailler dans les jours à venir bëgg nañ avant élection yi campagne yi di commencer impacteurs yëpp ñu ngi leen di woo ci suñuy manifestation yi ñu nar a def. économique situation bi métti na te koo xam ne depuis cinq ans mi lay wax nga toog ba mu nekk à quatre mois des élections ñoom it aussi am ñu droit inquiété wu te loolu aussi dama ci ànd ak ñoom. que DG bi lii nga xam ne kenn jël na ko engagement rek bu mujj bi ñu accompagner ko. état bi accompagner ko aussi te décaissé gaaw mu mën a eggali liggéeyam ñuy entrer en possession de leur terrain mais aussi titre de propriété yi titre de propriété yi nga xam ne mooy mandarga kër yi te premier ministre wax ne nañ leen jox ay titre indi nañ leen di jox parce que loolu volonté la mais volonté boobu nañ ko matérialisé bu ko defee ñoom bu ñu ñëwee seen sit xool ñu def bornage yi xool ñu def numéro yi ah ku nekk ñu jox la sa titre nga xam fi nga moom ah, bu travaux yi eggee en en mi décembre bu ko fekkee ku nekk jël sa kër état bi am jàmm ñëpp am jàmm. nekkoon quatorze milliards mu dem ba soixante parce que bi ñu xoolee te conciliation bi au départ ay dix millions gi ay cinq millions prévoir woon fay nit ñi mais bi ñu dogee waxtaan. premier ak premier ministre daal d'antan ak premier président de la république président daal di ne non non lii c'est pas normal dem na ngeen réviser barème bi ñu ñëw ñu réviser barème bi ñuy concilier tous les jours 9 heures la ñuy toog ba 4 heures du matin bu ñu toogee 9 pour revenir encore le lendemain à 9h on l'a fait pendant 3 mois 18 jours ba ñu concilier ñëpp ba pare li des nag mooy yaa xee subra jot yi ko concilier nañu nee nañu seen terrain yi fii la nekk nee nañu ku nekk lii nga am jox nañu ñi seen xaalis nañ leen jox seen terrain